waaye xel maa nga ci suuf moom est-ce que xel mi génnee ko génnee na ko ci suuf Euh, loolu non <laughs> xam nga nag franchement bon hmm. peut-être am na ay internautes yuy door a dugg si 313 nii nii nii hmm. di kii rek dal ci hmm. saa waaj yi nii bon lu weex laa daan sol mais léegi maa ngi maa ngi def ay mauve di def def ay gris waaw mais ba may def bu weex tàll bi baatin laa daan ñëwi di wax ku bëggoon xam samay vidéo la ma doon wax ci Macky Sall ngeen remonté ci vidéo yi ma doon wax ci Macky Sall yàggul dara waxew ma bakkan Macky Sall mii fi mu jaaraw nag euh, Abdoulaye Wade su ngeen ko fa jaaralewul du ngeen am jàmm il va déstabiliser ce pays. fan la jaaraw nag Abdoulaye tu sais que euh, ma Macky Sall euh, Macky façon politique mm-hmm. man man man man dañuy wax Machiavel c'est pas un hasard hein son nom là. Mm-hmm. ma Macky. Sidy Lamine da ne woon na Macky la sant ci Thiavel. Euh, mais moom la rek euh, non non parce que moom dafa mel ni. parce que mhm. parce que Macky dafa mel ni moom dafa am laboratoire. laboratoire mhm. laboratoire pour pour euh, laboratoire politique la yor tu sais que Macky laboratoire la yoroon. Mhm. pour nu muy conquérir pou ni muy conquérir pouvoir bi Macky Macky xëyul xëy rek ngeen gis ko nii de Macky ba muy yori lex yaru lool derrière Idrissa Seck. waxuma la sax Abdoulaye euh, bi moom ak euh, jëm si yàlla ji yàlla na ko yàlla yiram dégg naa di sekk di leen tooñ naan mhm. yàgg nañ ko attaayal Macky Sall yàgg naa def les douze yeux euh, doux mhm. pour am la mu bëgg mhm. gis nga conquête de pouvoir bi da ko planifié Macky bi muy bi muy nekk ministre de l'intérieur xam xamoon na ni moom Euh, bu bëgg naa dugg ci politique. mu xam ni euh, fatigam ba mu euh, dëkk mi laa tout fait approché na Karim xoolal dafa nax Karim Wade. dafa mm-hmm. approché Karim. Mm-hmm. xoolal dafa amadoué Karim Wade ba ba confiance entre moom ak Karim. Mm-hmm. moo tax bi Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade amee ay bis bi c'est Karim Wade moo propose papam mu jël Macky Sall comme premier ministre Karim Wade parce que Macky Sall da koo da liggéey yoon da koo dafa liggéey affaire bi ba mu mokk daf dafa ko travaillé da dafa ko dafa travaillé Karim ba meeb ko ba téye ko. moo tax bi ko ab Abdoulaye Wade nommé premier ministre euh, fekk na avant nekkoon de l' mi il mhm. avait tous les données électorales. Mhm. cartographie électorale bi Macky da ko xamoon mu xam ni euh, Fatick comme li Idrissa Seck euh, defoon Thiès mhm. def ay. grappe de convergence li réew mi yëpp waroon a jël ci en infrastructure nga xapp ko ci benn dëkk di def du tap àll l'œil tap à yi mhm. bëgg rek tëll e gis les chantiers ni wu gaa yi nga liggéey tap à yi la ko mhm. parce que c'était pas rationnel li Sénégal yëpp war a dunde nga ne da koy def ci benn dëkk pour suñu rombee ñu xam ne yaa ngi liggéey c'est du tap à l'œil mhm. tap à l'œil boobu la la Macky Sall copier def ko Fatick bi mu amee une bonne base politique ak Fatick mu xool ko mu sondé ko mu xam ni 12 euh, pour cent la il paraît. Mm-hmm. Euh, avec la avec le vote Halpulaar. Mm-hmm. Euh, bi mu ko sondee mu xam ni 12 pour cent mu mënu ko may mu dem deuxième tour. Mm-hmm. ci la xamee ni kon il lui faut faire le tour du Sénégal. mu def ko ñetti yoon. def du tap def du porte à porte. seere nit ñu bëri c'est parce que tu sais président bu nekk aux États-Unis liir naa ko ci benn livre dal Carnegie comment se faire des amis mhm. le président américain bi bi remporter des élections xaw xamatuma euh, est-ce que du Churchill euh, parce que Churchill Angleterre la mais ki may wax nii euh, du Roosevelt il faudra que ñu delluwaat ci livre bi dal Carnegie comment se mhm. faire des amis mhm. le président avait dit que moom xam na ne élect doctorat boo dem ba serré ko la main. Mhm. nit koo dem ba ba ba ba serré ko la main benn autorité politique buy def porte à porte serré la main d'une personne wax sa tour mhm. ree la mhm. nee na nee na vote boobu da nga koy acquérir définitivement sympathie la boo xam ni ñoom fa la ñu xamee ni ce sont des sciences politiques yu ñuy jàng même même le président la am na ci livre bi benn témoignage benn jardinier bu ñëwoon à la maison branche branche. Mhm. non non benn menuisier bu ñëwoon di réparer euh, les cuisines de la Maison Blanche mu mu nuyoon teg moom ndekete jabaru waa ji dafa sojoon. Mhm. mu wax ko la président quoi daani ko d'ailleurs ma femme est enrhumée mhm. quatre ans après xaw ma cinq ans après ci benn euh, campagne électorale bu. président bi doon def ci dëkk boobu. Mhm. dafa seen waa ji ci biir nit ñi dafa waaxu ba ci waa ji jox ko loxo laaj ko laaj ko ndax jabar ji euh, mujj naa wér. mesque ruume waa ji euh, mhm. pour wan la ni la dafay euh, di am attention ci électorat. Mhm. da ngay am base affective. Macky Sall ci loolu la joué ba am sympathie boo xam ni da koy may pour mu dem deuxième tour ak Abdoulaye Wade tout a été calculé. bi muy calculer na ko ba jël pouvoir bi te Macky Sall ci calculam yooyu la continuer ba gouverner ñu douze ans. tegoon na nag ay calculam ba pare. Pastef du bokk. affaire euh, dugal affaire bon terrorisme dissoudre parti Pastef. waxoon naa ko fi c'était planifié pour que Ousmane bañ a bokk waa Pastef fi bañ a bokk. mais yàlla moo ñëw avec touche de dernière minute boo xam ni Macky maîtriser wu ko kenn ci àdduna maîtriser ko mais est que xam nga lan la. Mhm. c'est la décision du conseil constitutionnel. Mhm. moo basculé lépp. Mhm. bi mu validé candidature Bassirou Diomaye invalidé bu Karim te loolu na ngeen déglu Serigne Mbacké Ndiaye semaine passée expliqué na lépp la ma doon wax fii Serigne Mbacké Ndiaye maa confirmé nee woon na il a été il était pour que Karim wadd ak Amadou Ba dem élection ensemble. ku ci jàll premier tour keneen ki jàppale sa morom deuxième tour ki nekk le premier ministre ki nekk président ñoom ñaar kale woon nañ ko ba pare. Hmm. Serigne Mbacké Ndiaye pour wax leen ni leen man li ma doon wax nii Karim Wade Amadou Ba xoolal tout a été planifié. Macky Macky planifié woon na schéma yëpp. Hmm. mais Macky Sall soo gisee euh, euh, ba ci dernière euh, quinzaine bi. Hmm. bi nga xam ne validé nañu validé nañu la candidature euh, de Diomaye moo mm-hmm. xam ne léegi pouvoir bi échappé na diyom boobu Karim Amadou Ba échappé na ko mm-hmm. ci la ni nag là il faudra que je négocie avec euh, waa Pastef pour mm-hmm. mën a sauver sa peau sauver poom boobu nag gis nga ni muy bëgg di teg xel nii ñëpp sauver pom boobu du yéene bu rafet parce que da tout le temps bëgg di nax nit ñi la moom moom lu muy def da laa bëgg di nax. Mm-hmm. instant bii may wax ak waa Pastef xam nga ñëwoon naa ni leen Macky Sall du mës a bàyyi. Mm-hmm. ma Macky su ma tee du mës a mm-hmm. bàyyi. da dóor kurfañ ba ba ci rot mais du yàbbi. te gis ngeen li euh, mu def réew mi moi je dis. que ni euh, euh, déstabiliser na réew mi économiquement. Mm-hmm. mi ngi ci biti Fonds monétaire international xamuñu lu mu nar ak Sénégal. Mm-hmm. Macky Sall dafay dafay continuer xeex bi ci biti. xoolal gis nga partem bi nga xam ni euh, démissionné wul ci APR. Mm-hmm. te et puis Serigne Mbacké Ndiaye non Madiambal Diagne. génnam bi mujj est-ce que xam nga. lu mu confirmer moom nee na. parce que nee na c'est vrai que Amadou Ba ak Macky Sall ils ont eu des. problème même est-ce que xam nga ti euh, manœuvre politique yooyu mais est-ce que xam nga luñ ko duggaati. Hmm. pour mën a acter la séparation de Amadou Ba et de Macky maintenant définitivement loolu waa APR yi ak politicien yi déglu dañu war a xam ni Madiambal Diagne la mu wax ci Maïmouna Ndour Faye hmm. mooy maanaam Macky Sall et Amadou Ba c'est fini maintenant. Euh, euh, mission bi jeex na parce que Amadou Ba dañ koo mission commando la nekkoon. Mhm. Macky Sall parti bi musu koo jox ma Samba musu koo jox ma Demba Amadou Ba sax mi mu bëggoon a teg saa bu ko tegoon Macky mooy nar a téye parti bi. Mhm. démissionné wul nag mi ngi toog nekk ba France xaw ma fan la nekk Maroc xaw mhm. di def ay. Euh, stratégie. di jël portable bi. di ko def main libre. mais libre di wax ak di di wax ak waa APR yi fii léegi la la la mu defoon Abdoulaye Wade mooy bi régime Abdoulaye Wade tombé. Mhm. dafa repéré doole PDS fu mu nekk mu xam leen ni vingt 27 ministres lanu mu def leen liste namm jaase gi ba mu ñëw ni leen kaay leen rang sama kanam yéen ñëpp vous allez passer. Euh, au euh, mais gis nga ba mu leen euh, menacé ba ñu xam ne ñoo ñooñu wékki nanu seen gànnaay ba teg ko ci la mën a amee mais mais libre pour. pour pour dérouler. ce qui se passe dans ce pays euh, Macky Sall toute son équipe bi mu am nii avec APR. Mmh. député xaw ma député xaw ma ministre xaw ma euh, APR am bii daal. Mm-hmm. c'est une machine à démonter. c'est une machine à démonter. pour yow dañoo war a dissoudre APR. non pas non waxuma dissoudre parce que dissoudre foo koy teg. ban base légale waxuma loolu. Mhm. c'est-à-dire sàcc yi xam nga xam nga Macky soo ko yenee lu bis boo ko yenee lu ko doy sëkk. Mhm. dootu la tal. Macky sàll système am loolu la. Mhm. da lay teg loo ko dul tale. la mu daan def nit ñi nag il faut que ngeen yan ko ko da ngeen koy teg moom ak ay nitam sàcc gi nu sàcc mais waaye mais loolu sax gaa yaa ngi ci mais avec temps. nanu leen may loo xam ne ñu liggante seen bopp alal ji ñu liggante nii te loolu le vingt y aura mhm. des euh, revues euh, bon y aura une euh, nationale. Mhm. Euh, ci justice bi. Mm -hmm. peut-être man dama jàpp ni ça va le moment. de libérer la justice. pour qu'il fasse son la parce que nag saa mhm. magistrat boo jox oto. jox ko salaire indemnité lu kenn amul ci réew mi ñu am ko c'est pour qu'il bosse bien mm-hmm. dañu leen sas jox leen liggéey léegi ñoom dinan am liggéey boo xam ni mm-hmm. Macky Sall et sa clique bon mm-hmm. euh, am na ci ñoo xam ne ils font tout pour se laver à grande eau ay général musa Fall xaw ma fu ñu jaar ak journalistes yi leen di bëgg a euh, euh, bëgg setal ah, campagne de communication bi ma gis autour des anciens acolytes de Macky Sall lan comprendre léegi mm-hmm. Macky Sall li ma ci gis daal saa yi. Mm-hmm. la mu tegoon la mu teg comme stratégie. Mm-hmm. c'est pour que maa ngi dem mais du ma leen bàyyi ngeen gouverner su ngeen demee ba mënatu leen. ñëpp te gis nga euh, li ñuy wàcc nii. xam nga xam nga fi mu toll nii déggagoo benn opposant bu wax. c'est parce que Diomaye a ngi déroulé. Mhm. Euh, léeg-léeg rek ngay dégg yenn genre le fou du village la yaa a des du village qui sortent qui font des euh, déclarations incendiaires yu kenn xamul en l'encontre du régime amuñu lu ñu wax. Mhm. mais gis nga bés bu nu leen mayee du temps et de l'espace ba nu mën a dérouler waat fii waa APR yi. Mhm. non ils vont ils parce que euh, l'argent c'est le nerf de la guerre. xaalis de suñ ko yoree saa waay ñu may leen jàmm delloowuñu alal ji lijjantiwuñu seen bopp ba ñu am ba ñu muñ ba ñu muñ koo tal kenn du am jàmm ci réew mi et et mais il revenir politicien moom da koo tàmm toog muy dox képp ku ko tàmmoon doo ko bàyyi da ngay naan fexe nu ma dellu see ci réew mi. te ils peuvent déstabiliser ce pays ah. man euh, keroog euh, le président de la république euh, jógee ginnaaw Guinée Bissau jubali foofu la ca Mbourkat. Euh, son discours gis nañu ko euh, un homme de terrain. dem peut-être à l'improviste ci sur les lieux euh, laajte lii ak ñu teg.